li fi amoon Sénégal ba kenn mënul génn kenn mënul sax mais Sénégal dafa xam loolu tu sais moi je faisais beaucoup l'Afrique centrale nga xam foofu lan am mooy kii xeet bii la kii ñoom ñooy xeex ku ñu jël si Sénégal dañoo xam loolu on connaît pas Sénégal xamuñu am am na loo xam ni im mënuñu ko imaginer suñu réew mu am fi kon dañ ci muslu. mais est-ce que électoralement ku koy développé beneen bi mooy un aspect extrêmement dangereux boo xam ne am na ci événement yi mooy l' infiltration de forces extérieures gis nga li ministre de l' intérieur danga koy confirmer dama koy confirmer nos jeunes à l'université dañ ma seet si ñu ni moom bi ñuy lakk fac science étudiants yi dañu duggee les délégués dañu jógee campus ñu daw dem fac bi ñu demee ba ñu fekk ñu kagguliw ñuy bëgg taal bi si ñun leen noonu nee na li ñuy làkk sax nee na ñoom daf leen jaaxal mais pistolet lañ génne. Hmm? pistolet les étudiants lañ leen tegal ñoom ils étaient surpris ñu reculer ñu taal bis yi mooy kii ñu taal ça c'est à condamner après ñun leen où est le où est l'électorat le le rectorat lañ doon laaj ñu ne où est l'électorat kon xamuñu fii wala xamuñu université bi c'est des forces extérieures mais dañu kagalewu nee nañ les forces de l'ordre étaient à l'intérieur mais après dañu gis forces de l'ordre reculer ndax comme ils étaient armés suñu tiire woon dañuy tiirante ar kii policiers yi si les policiers ripostent étudiants yi ñaata ñoo ci mën de on va dire que Sénégal y a un moo tax policiers yi reculer ñu bàyyi ñenn ñi ba ñu génn ba pare ñu jàpp ñenn ñi mais pour bu diir et ça c'est quoi c'est l'opposition radicale wala c'est. c'est la responsabilité de qui. mais mais de l'opposition de de Ousmane Sonko principalement. mais qui moom moom moom moo généré. mais non écoutez yoo xam nag yéen tamit.